cirë ngeen jëf Antoine Félix Abdoulaye Diome daaj na démb ci assemblée nationale lu mburu dajul ci fuur journal lay fo nañu moom ministre intérieur ba ñu koy wooteel bit seem député yi fara ci kujje politique gi may ñu ko fu mu yàkk ak nàkkam alda alde nañu ko ba seen xol sedd député Déthié Fall moo ko ne sak cuune ak sa waye di ci wàllu politique moo dugal réewum Sénégal ci tension gi mu nekke ci fan yi di ñëw ak ci élection locale yi ñu jëm lu xew na ngir mën a éliminer liste yi jóge ci opposition bi député bi di Déthié Fall daaneel beneenub député di Aïda Mbodj jël ne ko ñun xam nañu ne administration territoriale bi lu ñu def rek yaa leen ko sant list yi ñuy accepté ak yi ñuy rejeté yaa leen koy wax te tegoo ko fenn lu dul ci sa intérêt bopp Cheikh Mbacke Bara Dolly dollil ko ci ne yow Antoine Diome doyotooñu wóolootuñ la ndax ñun ñëpp seetlu ne yaay loxo bi i Sall di sànki opposition bi opposition bi seeni député la sinekaay mi ngi xamal ne dal nañu ci kaw Antoine Diome démb ci assemblée nationale ba assemblée ba di riir journal bi teg ci tegal ñu ci xëtamu njëkk kàddu ya ko fa Déthié Fall samañ député Abdou Mbow moom it dellu ko samañ ba mu saf sàpp mi ngi wax ci laa sinekaay ne yëkkati ay kàddu yu tegginewul di ko teg ci ministre de la république jekkul jaaduwul te see lâche suur soo nañu Aïda ak Déthié Fall lu ne yàkk nañu ko Antoine Félix Diome démb waaye li wax ji di bari bari ak la muy rëy rëy saa xombal di Antoine Diome yëgalu ko yaramam Antoine imperturbable journal Les nañu moom kay da leen a wan carrément a jafandu taxa ngal-ngali naan justice réew mi dañu ko instrumentaliser nee leen it du caagi ne cour d'appel yi jox na ñenn ñi dëgg que préfet yeeg sous préfet yi dañoo war a jëlaat fi saa yi ñu génne woon loi bi waxul loole Sud Quotidien wax ñu ne coow li am ci liste candidature yi ñu rejeté ak administration territoriale gi yóbbu yëf yi ca cassation coow la teere na ci assemblée nationale démb bi ñuy woote budget bu ministère intérieur règlement de l'observateur ca yemu fa wax moom Malick Gakou bokk na ci li mu ne partem di grand parti musuta doon te du mësa doon parti bi yóbbaale ma ma yóbbu leen ci journal Le Témoin nopp dalooti na ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy wax ne ay fana ngi ay ministre yu nekk ci gouvernement bi li ñuy fexe moo di véhicule de fonction yi leen état bi jox état bi jaayaat leen ko te li ñu bëgg a oto yi na la ko yàlla nëbbu ndax véhicule de fonction yi ñu leen jox commenter nee nañu mooy li ñu jot frais ci wata yi mu di assurance bi di carburant beeg entretien yaak réparation ya xaalis bu bari la ci dépensé li dépassé journal Tribune mooy réewum Sénégal ak ni fi fitna ji mel léegi fitna fépp violence partout noonu la ko journal bi bindee ci xëtamu njëkk xamal ñu ne arène yaa ngi mel ne tooli xare stade yi ñu dëkkee leen caxat-caxatee université yeeg yi bëgg ak fitna ji ñoom it mel ne fu ñu suy poobar bailleur mbir mu yéeme nga fa ca crédit mutuel du Sénégal ba ca saam la ñuy tuumaal benn caissière ne dafa détourné lu toll ci ñeent fukki million ndaw sa nag nee na tayu ko ndax benn Camerounais moo fa ñëw gëlëmal ko ba mu tibb ca kees ga ñeent fukki million jox ko mu dem ñu demaat ci xët mu njëkk l'Observateur fekkaat fa leneen benn directeur d'école bu ñuy tuumaal ne dafa violé benn élève bu jigéen boo xam ne mineur la yéenekaay bi nañu bi ñu koy àtte démb ca chambre criminelle bu tribunal Mbacké fa la waxee zizi ne moom mënut violé kenn ndax du maanaam ci dafa yoom